conséquences yu bari noo ko jàngatee. ah conséquences yi man daal xam nga instant yi DPG bi moom c'est rangé au kii de. au tiroir de. DPG bi moom loolu moom c'est une <laughs> loolu moom jàll na parce que euh, tey affaire motion de censure la ñuy wax léegi motion de censure nag bu la ko gars di kii boo ñëwee gars dinañ la poser ay questions day mel ni DPG c'est une autre forme rek. Ah, parce que parce que dina doon débat. waaw waaw waaw parce que léegi dina ñëw léegi nag waaw léegi nag est-ce que Ousmane Sonko va venir. voilà ñun ah, parce que Ousmane Sonko tamit c' est quelqu' un d' imprévisible quand même mm-hmm. Fatima. Mm-hmm. kenn mënul xam Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko début bi dañ ne woon day def déclaration de politique générale. Mm-hmm. ñu ne ministre bu nekk joxe na ay inputam kii nañ ko moom mu annoncé ko en conseil des ministres. ñu dem ba si biir ñu ne non foog ñu changer règlement intérieur bi changer nañu règlement intérieur bi gis nga. waxaatuñu waxu DPG ñoo ngi wax waxu leneen donc Ousmane Sonko moom bu ñu waxee dëgg rek te yàlla tax. Mm-hmm. moom dina def déclaration de politique générale parce que loolu constitution bi la mais Ousmane Sonko n'a pas envie. de faire de devant faire ses mais quoi qu'il en soit de tout façon même bu ko deful ci kanamu député yi dina ko def ci kanamu ay député Benno Bokk Yaakaar wala député opposition bi ndax mm-hmm. même bu ñu euh, voté waate amalaat ay élections législatives. Mm-hmm. Pastef mënul am 100 pour cent quand dina am ay député kii te ils vont lui poser des questions lu mu bañoon a dégg dina ko dégg par la force. par est-ce que yà yàpp nga ni Serigne euh, le premier ministre euh, sera au rendez-vous parce que nag euh, quoi qu'on puisse dire njàngat li ci nit ñi am am na sax ñu koy tooñ naan ko jàkkaarloo Coura Macky ak ku ko rey la yemale. waaw dina dem assemblée nationale. dama ne la woon ah mais loolu la loi bi wax. d'accord dafay ñëw toog. bu motion bi jàllee automatiquement moom day présenter démission ñu xool nag après naka la bu ndax président te ñëpp xam nañ ñi président de république moom si li ñu yaakaar da koy reconduiraat. Mhm. moo tax sànq ma ne moo waxoon ni conséquences yi njeexital li mën na bañ a am solo lool si assemblée boo xam pratiquement huit jours moo la dese pour nga dund te ñëpp xam nañ ñi tey volonté ñoom. ñi nga xam ñoo yor nguur gi seen bëgg-bëgg mooy tas assemblée nationale parce que président Ousmane Sonko premier ministre du moins wax na ko sa sam bu yàgg ba ba mu tontu woon Guy Marius Sagna il veut un débat de qualité bu ñu defarul assemblée nationale mën na dem ci jury populaire bu gën a bu gën a bu gën a pour pour un débat de qualité xam nga yaa ngi jaawale. xam nga xam nga un débat de qualité ak nit ku am qualité c'est c'est c'est différent oh, dama ko rek naa ne sànq li ma yi ma la dóor da laa metti waaw sa logique foofu ndool ngay wut waaw dama ci sa logique dina dem assemblée national parce que loolu c'est une exigence constitutionnelle mm. ko war a def à la kulli aale loolu nag bu ko deful man dana ma perte trop parce que jàpp naa ni constitution moo ko sant mu war a dem assemblée nationale. waaye nag kañ ak lu koy def ak waxtu mu ko war a def loolu constitution bi sant ñu sant ko ko. xam nga waaw sànq xam nga danga wax ay loi organique ak nangam ak nangam. ci constitution bañ ne ko sax dañ ne hiérarchie de normes ñëpp xam nañu constitution bi c'est la loi des lois moo féete ndey ndey ndey moo féete kaw ndey ñëpp. amul ku constitution bi. te loolu nag mooy état de droit. mooy ñëpp yem ci kanam yoon. comme yoon ko santaane dina ko def mais nee naa la si fois lépp jaar si yoon jaar ni mu war a jaaree contexte bi nag c'est un contexte où on parle de disso de de de motion de censure bu ñuy déposé c'est incertain pour moom mu dem assemblée nationale parce que da déjà dafa am ay ay couleurs yoo xam annoncé wu na si depuis bi ñuy voté euh, loi d'orientation defe naa budgétaire bi mm-hmm. ODB bi et cetera ñu dem ñu dem gars yi bloqué mm-hmm. ñu ñëwaat yàggul dara am na lu ñu ci commission des lois bi mm-hmm. gars yi najaat bloqué waat kon déjà rek foofu da ngay xam intention wu député yi intention bi ñu am par rapport ak Ousmane Sonko la mun na fësal assemblée nationale. tu as vu maintenant nag jàpp naa ni bu fekkee procédure bi jaar na ni mu war a jaare la responsabilité incombe au premier ministre de venir faire sa déclaration de politique générale si tout ça passe bien loolu laa wax su fekkee mbir mi jaar na yoon bi mu war a jaar lool laa la waxoon keroog bu ñu defaree règlement intérieur bu assemblée nationale ba mu jaar fu mu war a jaar président publier mu dem journal officiel bu boobaa moom amatul lay la mu war a def comme faire conformément ak constitution article 63 bu constitution si je ne me trompe pas article defe naa 63 bu constitution non article 55 de la constitution dafa war a dem assemblée def sa déclaration de politique générale loolu laa d'accord mais nag il faudra que loolu mbir yi nag tegu si yoon jaar si yoon itam ñu régler lépp ba lépp ni cocc biir assemblée nationale kon man nag loolu mooy suma gis-gis par rapport à ça. d'accord euh, wax moo lay bett mais mais ñàkk a demam moom du la bett mais demam moo lay bett ginnaaw si bu demee ak la ca war a xew ca gannaaw noo ko jàngatee ngeer. parce que bu demee pour mu défendre boppam mooy jafe quoi. Hmm. pourtant am na lu mu yor projet bu dëgër. yaa ko gis kenn gisul projet bi. Ah, gis naa ko man kenn gisul projet bi. bu dee da nga laaj man gis naa ko. gisoo ko anam luñ ci bind. luñ ci chapitre un deux trois wax ma ci benn rek ne ma lii ak lii lañ ci def. ma wax la benn chapitre waa wax la benn chapitre. wax ma ci benn wax numéro bi nag. waaw dama ne la. ci mën naa naa fàtte de ay numéro kon bul wax bàyyi déedéet bàyyil ma wax la mën naa fàtte sama yoon newu déedéet projet bu bëri ma koy wëree mën naa la ay numéro référence kay nga ma war a wax jéggal yow da nga war a wax référence kon yow yaa juum ma ne non jéggal naa référence nga may wax déedéet kon yow yaa xàmmewul numéro ak référence waa baax na amul benn problème. waaw da nga waroon wax référence. boo na fi article biir article 5 boobu. jeex na léegi bàyyil ma dem. da nga waroon wax référence yow Nguer da ngay jaawale mooy yi. numéro nga war ko jaawale ak moom am na passe 1 2 3 ba cinq waaw lépp looy wër rek di nga ne boo demee ci numéro nangam. chapitre nangam. nanga ma nga fa comme loolu mënoo ko xam jéggal naa la man ne li si yurul dara référence nga may wax ma ni la ah, référence d'accord d'accord comme livre amuti numéro le projet existe man de Sidi Rama bi ma doon na numéro ça existe d'accord ma ma ne li wér te wóor mooy yorul dara mënu défendre boppam ñii koy défendre sax dañuy dañuy am problème pour défendre ko xoolal rek maanaam yow ñi nga xam ne yow ñi nga xam ne sax ñoom ngay yónni délégué leen sëriñ sax mën na ci bañ a bokk mën na cee bokk tamit délégué leen pour ñu deman la défendre la ba ci waykat yi ngay woo pour ne leen kaay leen jàpp ci projet bi ñoom xamul nan lañ ci war a jàppe parce que booy way amul benn waykat bu fi ñemee taxaw way Ousmane Sonko ne ko fonk kàddoom la loolu moom xanaa xalaatu ko ban waykat moo ko ñemee way kii ku baax la fonk kàddoom la lu mu wax def ko kooku moom mayuñu ko benn waykat ci réew mi ah moom xam na ne du ci benn. Abdou Guèye xam na ne du ci benn. kan moo way plan kii nan la tudd. kanti la femme la nan la tudd. Adjouza du Adjouza. ah waaw Adjouza moo woy plan B. non non elle elle faisait référence à ay bëggante. non moom woyul woon Sonko de. leneen ah woyul Sonko ah. ah. déedéet man ah, plan B ah. bi waaw. ay mbëggeel la amul yenn woykat bu ñu ñemee. ñëw ne kii ku respecté kàddoom la xam mën nga koo jiiñ ay xut boog ay xawsu mën nga koo jiiñ wàlliw wàlliw songo wàlliw bu ñu dindi laam gi la ñu jàng alxuraan xam nañ li may wax ma ne ay mën nga koo jiiñ ay xawsoog ay ay xutboog ay ay yooyu yëpp mën nga koo jiiñ d'accord waaye ne ah kii de lu mu wax def ko ku fonk kàddoom la ñun Sénégal loolu mayuñu ko kenn heure bi moom na leer léegi nag loolu la war a défendre tey bu demee moom dafa war a défendre li mu waxoon défendre li tax mu samp gouvernement bi mais yow imagine buñ ko posé question ne ko appel à candidature bi foo ci toll lu muy wax moom fal na ba pare moom enquête moralité yi fan ngeen ci toll fal na ba pare lan mooy moral nit ki dundinam jikkoom ju baax jikkoom ju rafet lan ngeen ci gis ci Sonko man de gisuma ci dara moom néew ma nag jikkoom baaxul waaye gisuma ko de ndax nag li moral laa wax nag moral yéen ñi xam moral lan mooy moral suñ ko waxee am na fu xel yi di dem fu fas lu dem xel a fay doxantu mais yooyu ay question la léegi nan lay défendre loolu su nee def nañ enquête de mais député bu bu bu bu bu wow bët ni man dina ne ko ah est-ce que def nga ko ci sa bopp c'est-à-dire que yow ndax yow def nga enquête de moralité ci sa bopp yow ndax doon nañ fi dégg bu leen ñu defal procès procès moral nañ dem à justice xam nga boo déggee procès moral rek am na lu nekk ci ginnaaw lu ñuy nëbb c'est-à-dire siiful waaye bu leen def procès moral léegi ñoom après ñu ne dañuy def enquête de moralité luy moral moo tax ma ne la problème yi yi pour défendre boppam day jafe moo tax ma ne est-ce que dina dem parce que nag fi ngay dem pour défendre ko sa bopp. mais tam nag Serigne est-ce que tamit député yi waruñoo xoolaat seen bopp tuuti yow. waaw dama këf ngeer est-ce que député yi waruñoo xoolaat seen bopp tuuti avant Omar di jël. xoolaat seen bopp tuuti par rapport ak parce que aujourd'hui c'est le Sénégal qui est en mbir bi mbirum Sénégal la man ça fait toujours mal bennoo côté bële. dem ba tey maa ngi leen gis seen statut yi ñoom jéegéeg ñoom Abdou Mbaw ñu ngi yëngal game bi ñoo fi nekk et cetera et yëngal game et nous et nous et dans tout ça au fait c'est c'est ça ñun ñun et nous non mais non non ñoom dama leen koy laaj aussi ngeen xam non si xam nga lu tax parce que aujourd'hui ñoom waruñu am benn ma waruñu am benn euh, voilà dañoo war a nekk au-dessus de li nga xamante ni moom mooy politique bi maanaam wan Ousmane Sonko ni yombalal ko ni fii boo fi ñëwee lu lay lekk amu fi lu lay matt amu fi lu lay dogot dogotee amu fi mais mbir la boo non mbir la moom mais Sonko boo déggee moom ñi ñoom ni ñuy waxee ak ni ñu koy préparé mais man du paasi paaka balay reen di duma ma dem fekk ko fa mu nekk ma di fa dem nag sëriñ kaa ñu waxante dëgg non mais non mais non mais non mais am na yoo xam ne décrédibiliser la personne la décrédibiliser la personne la je pense que ñoom ñoom waa ñoo waroon a ñam seen soow mi tuuti nag ci sama mais assemblée yëpp. assemblée boo dem si monde bi. xanaa xamoo assemblée Sénégal lañ yaakaar ni rek dañoo mën a histoire mën a xeer mais assemblée boo dem si monde bi gars yi ñu xuloo di xeex député yi ñoo mel noonu. jàngaluñ la ko woon jàngaluñ loo mënul bu ko wax. loo xamul tam bu ko wax. kii nag li mu wax a bari de. te faaw mu leer. xam nga amoon na fi compte bu wax ne dugal nañ fa 46 milliards yu luubal fàtte fàtte lu ngeen di def nag mais fàtte wuñ ko de compte bi la soxla sénégalais soxla xam parce que compte bu ñu mën a làq suñu 46 milliards war nañ ko mën a xam fàttaliku leen kii lam wax a bari te li mu wax yëpp mënu ko défendre man ragalu ma nga yóbbu ma ci waa Pastef yëpp dem leen ci benn plateau 20 personnes ma défendre sama bopp ragalu ma ko waaye ñoom des fois man kese dañ dañuy ragal a ñëw défendre seen bopp. y' parce que ñu dara. jàpp naa ne en tant que chef du gouvernement tey ji waroo mën a ragal. ñuy représenter peuple bi. daa yorul dara. ñu laajte la même les questions les y' a pas de questions idiotes ah. gars yi war nañ mën a ñëw waaw war a am niveau. ba mais mais dina am niveau. ba ci li nga waxoon mais niveau boo xamante ak loo mënti wax. Euh, nu ngi koy xaar indi problème mu Adji Sarr tegal ko. déedéet déedéet les parlementaires sont à l'image de notre peuple quand même. nañu waxante dëgg nag loolu c'est parlementaire.